Tianaba TV est à votre disposition pour la couverture de vos événements, pour la couverture médiatique des grands événements. Tianaba TV avec vous avant, pendant et après. Mbokungir ngir remercie, Tianaba TV du la abonné bësal cloche bi ngir lépp nga الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا لك لك الملك لا شريك لك mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi fii ci Arafat jotu jabaru rahma macha allah gis ngeen ko noonu xam montage mi kat ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aj at mi nga xam ci la ñëwoon ci aj Makka gi dafa ñëwoon ba ci suufu montagne mi mu jël montagne mi doxale ko diggante ak xibla waaye amoon yéene jublu xibla daal defoon déclaration ba mu ni waqaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqif man de taxaw waaye arafat foofu waaye taxaw rek taxawukaay la mu jël montagne bi mu dox diggante ma xibla bi muy ñaan fi la taxawoon di ñaan di ñaan di ñaan ba jant bi euh, di euh, waaj a soog mu waxal ni ko waxal nit ñi nañu Bilaal daal ni yéen nit ñi déglu leen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit ñi maa ngi leen di xamal ni Jibril ñëw na ma fii léegi bi mu ñëwee daf maa jotali nuyoo yàlla bi mu paree nee na ma yàlla baal na waa Arafat Omar ibnul Xattaab radiyallahu anhu ne ko yaa rasulallah ndax ñun dong la mu ne ko déedéet yow ñun la ak képp ku ñëw ci Arafat ba yowmal qiyaam loolu nag mbokk yi bisu arafat at moomu bisu ajjuma la tombeloon te xam ngeen ne ajjuma tombeek arafat du saa su nekk lay am ndax fii ci euh, Màkka 2014 la fi arafat euh, mujj tasante gëj tasante woon ak ajjuma ba tey kon yàlla na yàlla def rek lépp luñ fi ñaan yàlla nangu ko ñi ngi ñaanal euh, sunu bopp di ñaanal réew mi yëpp yàlla defal ñu wér-gu-yaram fan wu gudd gu ànd ak wér-gu-yaram waaye ngëm yàlla gu yàlla nangu yàlla na yàlla may ñu ngëm yàlla gu dëgër gum nangu waaye yal na yàlla may ñu jaamu yàlla goo xam ne bi dafa dëpp ak jaamu yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla defal ñu li ñuy jaamu eh, yàlla gërëm ko mu am ixlaas eh, ba pare am sawaab yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def mooy mu sell ca nuroo ak ni ko yonte yàlla Muhammad doon defee waaye tamit yàlla defal ñu sunu xol bi ñu bañ ca bañ benn julit bañ ko ci ëmbal noono yàlla defal ñu eh, fanu gudd gu ànd ak wér-gi-yaram yoonu màkk yu bare bare bari ñu ñëwagul ñëpp yàlla indi leen fi yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def kenn ko nekk la nga yëngu yàlla nga yokk ba yow ci sa bopp nga yëg ni yaa ngi yokk loolu yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ñi am ay feebar yaram yàlla na yàlla wéral leen ñu ne ci ay xat-xat yàlla na ko yàlla teggi waaye tamit ñi jiitu ji xam ne tey ñu ngi suuf yàlla na yàlla yàlla na yàlla jéggal leen yàlla yàlla def jàmm ci réew ma yàlla na fa yàlla def nawet bu am barke yàlla man na ko yàlla na ko yàlla def yàlla réew ma am jàmm yàlla na fa sutura bari yàlla na doomu aadama yëpp yàlla may leen fan wu gudd gu ànd ak wér gi yaram jàmm yàlla gu nangu su mujjantalu kàddu ci àddina yàlla na nekk laa ilaha illallah ca ëllëg bu ñu demee ca yomal qiyaam ndax dem mënut a ñàkk yàlla na ànd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dugg aljanna yi firdawsi mi nga xam ne arasu rahmaan moom ko mbaar yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def eh, di woon eh, seen mbokk Mame Mor Mbengue eh, pour Thiénaba TV asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi kon ñu àggale reportage bi ànd ko sunu frère di euh, Serigne El Hadj Talla Gueye xam ni bii mooy ay yoon yoon ñuy tasante ci barab yi mais chaque jour bu fi nekkee rek kenn ku nekk day jàpp ni moom mooy moromam morom bi jàpp ni moom mooy euh, ka ca des xam dañuy wërante ci barab yu mel nii ba tey yàlla def ci ngoonu takkusaanu ajuma ci arafa ñu tasante wax El Hadj Serigne Talla Gueye Seck yaakaar naa barab bii te dañ fay ñëw en tant que euh, guide ci mission gouvernement bi tey ana yan kàddu ngay sànni wàcc na alhamdulilah ginnaaw bañ sant yàlla bu baax di diwaat ci yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam comme Mame Mor sëñ Mame El ni nga koy waxee rek nuyu Baye Assane Seck moom mooy xalif général Thiénaba bu wàcce ko sa njaboot gi yëpp di nuyu tamit waa Thiénaba yëpp di leen ñaanal di wax ne loolu nga wax noonu dëgg la man yow maanaam yàlla moo ñu boole te yàlla fa muy boolee ay ay jaamam yàlla moom rek moo ko xam mhm. dañuy wax ne fii nii ci barab bi barab bu tedd bi ñaan ñu ñooñu seen couleur dañ ko war a fonk loolu force la ñu fonk ñaar ñi nga xam ñoo bokk daara di jàngal xuraan ba mokkal ko ñooñu seen couleur kon yow maa yow yàlla moo ñu boole ñu doon ay ay ay ay doomu nday doom ay bu neexee sax doon ay seex parce que moom boo fa dajee rek mën nga ni sama seexu màkka la dëgg la waaw di la di la nuyu bu baax di la ziar waaye di nuyu waa Thiénaba yëpp di leen ñaanal di profité ci promotion bi nga xamante ni moom la ñu yàlla defal mhm. muy jour arafa am lool mhm. nga xam yonent bi sallallahu jour ajjuma la tombeel arafa te yonent bi saa dafa wax benn message dafa benn wax benn xadis bu gàtt ëmb lu bari muy dañu alxajju arafa tey bu ñëwee bu ne alxajju arafa mu ne aj gi arafa la ba pare aj gi ñëw tombeek ajjuma tombeek ba mu ko defee insha allahu rabbi ku loolu am nañ ci yaakaar bu baax yàlla dinañu nangul bu ñu nanguleet yàlla na ko tuur ci askanu Sénégal gépp Sénégal élection yii di jub si yàlla na yàlla xëpp si ndox sedd guy benn bakkan ron jana boobu ñu dëkk ñu ngi ñaan yàlla jàmm sax fa ba ba indaa yombi din ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko góor gu mag bu tëdd foofu di Seydil Mujaahid mm, mm, mm. lan mooy sa kàddu gu mujj El Hadj Sall Gueye yóbbante wàcc na ma mooy xanaa di leen wax ñu ñuy ñaanal te ñoom it ñu tàll seen loxo di wax amin fuñ toll te xam ne ñu ngi leen ñaanal comme barab bii ñu toll yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni ujaaj bi benn bàkkaar dong la mën a am fii tey Arafa ñu ne ko ban ban bàkkaar la mu ne mooy nga ñaan sa soxla ba pare am si sàkk ni yàlla dina ko nangu du ko nangu kon loolu kon am nañ yaakaar ni tey luñ ñaan fi yàlla dina ko nangu gëm-gëm googu gëm-gëm googu la ñuy doxee kon li ñuy wax waa Thiénaba mooy ñoom ñëpp ñu wax amin te xam ne ñu ngi leen di ñaanal li ko daggee ci Baye Assane mi nga xam mooy kilifa dëkk ba ba ci liir bi doodu judd tey ñëpp ci biir ñànk ñu ngi ñaanal ñëpp di ziar ñëpp ñu ñaanal Thiénaba TV tamit yàlla yokk ko ba ba bañ koy dégg ci àdduna bépp salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh di ne vidéo bi nag ñaar laa ko may kenn ki mooy sama yaay euh, Adja Nooy Seck mi sa waajur kenn ki mooy euh, soxna Pendelo mi waajuru directeur euh, bu Thiénaba TV di seen mbokk Mamor Mbengue mbokk ngir darey Thiénaba TV du la rëcc bësal abonné bësal cloche bi ngir lépp nga mën koy am Tianaba TV est à votre disposition pour la couverture de vos événements, pour la couverture médiatique des grands événements. Tianaba TV, avec vous, avant, pendant et après.